كانت انغرام دون لا فك دا تخواي بي لما نك لمنو لب داف نكو شي شي شي دبل كو سنتوا تي سيقو في كين دار كو سنتوا دغ لا سيقو في كين دار كو سنتوا كون لي مي داف غينا سنتوا لاكو دفال لاكوي دفال لاكوي لغييل كوكو جامو يالا غو ريلا دا سنتوا تخلوغول دار لول بروم لوكوي دفلو يالا غو دفال كون نون رك لا دمه كون نك àggal leen ma la ci des waaw foofu foofu foofu foofu la toll. jërëjëf ñu déglu Cheikh Mamadou Bachir. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. di jéggalu lool kàddu yi rek ndax. ndigal ndax bu ma sëriñ bi yónnee faaw ma jottali li ma wax. waaye daanaka sëriñ bi tënkal na boppam lim mu bëggoon wax lépp kon ñi tàmbalee nuyoo bi ci président Macky Sall ci turu sëriñ bi ak mboolem délégation bi mu bépp di ko dalal jàmm ci dëkk bi ci waajtaay bis bu bi nga xam ne bisu sëriñ Touba ni ma ko daa waxe waxtu ne mooy bis bi mu laxasaay woon di mu liggéeyal boroomam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jànkoonteeg ay metti metti yu ëpp ba yàlla suñ boroom at mu jot natt yu mu ko teg bu waxtu wa dellusiwaatee mu tegaat ko yu ko ëpp noonu la doon doxe ba ci at yu mujj ci njaarim 1919 wala 1920 sëriñ bi xëy woote doon séntu nattu yi yàlla suñu borom xamal ko ne ko jeex na ak pay ci des li fi àddunaa ngi dox saa su bi si accès xéewal gu mal mayoon dama koy dolliwaat te buñ demee ba ëllëg itam foofu ay bis amu fa waaye fu koo ne sama bis yi daana la itteel nga di ci taxaw buñ ci àggee lépp loo xam ne ay xéewal yoo daa am bis waa da dolli ko wat kon bis bii bis la boo xam ne mooy suñu lépp mooy bisu Serigne Touba di bisub yoon wi kon sëriñ bi nee na président mi ngi lay nuyu bu baax xam naa wax ji du gudd ndax li mu wax nee na li ma waxoon ci làmmiñam wax na wax na ma ko démb waxaat na ma ko léegi nee na mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci taxawaay bi nee na ni mu la waxee bis bii nga xam ne bis la boo xam ne ëmbalu la ci dara lu may sant la ak ngërëm la ak ñaanal la ak salaat lay dénk gi mu la dénkoon suñu Tuubaa loolu nag doon na sëkk. ndax sëriñ bi kat ku ko xam xam ne jëmm la joo xam ne nii ko kilifa gi waxee njiitu réew mi léegi ne mën naa ne néew na weer dugg ba jeex te sëriñ bi yónniwu ma ci ay itte waaye lenn lu ci ma doon soxlas ba fa amut wala njabootam kon moom adduna sépp la teewal lislaam jëpp la nekkal waaye njabootu Sëriñ Tuubaa gépp la nekkal kon nag nee na ngi lay sant di la gërëm ci mboolem taxawaay ak coono yooyu nga xam ne yaa ngi koy def di ko def ngir jëmbi Sëriñ Tuubaa waaye di ko def ngeen xam cofeet gi mu lëmbal àgg na ci boo xam ne waxuma la yërmaan waaye dama ko ñewantal daanaka bu lay wax soxla yi nit sax day diis moom ndax nee bu soñoon day àndee ci yow noo du du du la teg dara su bàyyi la nga ne liggéey waaye xam na ne kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa am na pay kon nag nee mi ngi lay sant bu baax ci coono yi nga xam ne. waxtu ne ni nga ko waxee jiitu na jataayam bii ngay am ci moom yaakaar akuk cofeel akuk jàpp bi mu fi nekkee Serigne Touba ba nëgën saa suy soxla si nit ñi accès ak lu jafe-jafe jafe dañ ca teg sa bakkan fexe ba na ko Serigne bëggee mu amee ni loolu nag nee na xam na ne ànd nga moom liggéey bi. kon mi ngi lay ñaanal la Serigne Touba daali ne daa waxoon ne ànd na man waa Sala nii. laa li xarijin dunyawin fa innahu yakunu min almuqarrabin wa anna man waasaleen li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne da yàlla rek tax laa jukk nee na suñ borom daan boole ci ñëpp gën képp koo xam ne dangaa ñëw ci man ci adduna yi yàlla dana teel sa diiru dund kon nag nee na na nga delloo xel te xam ne li nga jëfar sëñ Tuubaa ci dëkk bi ba di ko rëcc kenn mësu ko def kon na sam xel daal ci li ci sa ndax nee li nga jëf ci dëkk bi lépp gis na ko ndax trente bi nga xam ne doonoon na mébatum dëkk bi nga taxaw ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ubbi nañ ko ci màggal gi ak yeneen yi nga xam ne tudd nga ko léegi mooy forage ñeenti forage yi nga xam ne defaat nañ ko ci biir màggat gi lu wóotewut ak bokkut ak ñetti forage yi ñu defoon daaw ak assainissement bii nga xam ne ñu ngi ko door a tàmbali rawatina nag mbirum nab bii nga xam ne tiitaloon na ñëpp te jaaxal ñëpp keroog bala sëriñ bi jot ci sama kanam te laa wax na la yëpp ay soxla waaye bii mooy di ci jiitu ndax jaaxal na ñëpp ndax boo dem na bay li wër jumaa ji mu agsi waaye fa sansa lu matu juróom benn weer koo xam état ni muy doxee xam ne yitte ak taxawaay bu mat sëkk ci def ba loolu mën a am kon nag ñaan yooyu yëpp boo ko boolee lépp loo xam ne ittee ma wala ittee njaboot gi wala mboolem ci dëkki yoon yi dëkki sëriñ Tuubaa yi foo ci déggee taxaw ca ba def ci lu kaw jortam neen loolu mi ngi lay sant di la ci gënam di la bàyyi ak Serigne Touba mi nga xam ne ni mu la ko waxee léegi xam na li nga jëf waxoon na noonu la ma ko waxoon ci làmmiñam xamalal ma président ne ko dëkk bi jëflante wu fee kenn ku du Serigne Touba kon nag lépp lu mu daa jëfal Serigne Touba ak yoon wi na ko jëmee kanam yàlla def na nga waxal ko sa bopp nee na doo ci am dara lu may am ak ndam ak payug Serigne Touba bu ëllëgee nee na mi ngi lay sant la ñaan ci li sa kanam yaa ko xam yaa xam sa bëgg yàlla na la dimbale. دفعل لك توفيق عمي كنا كوسن جاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الله مكلرنا